oustaz àllin jëlaat kàddu gi eggale waxtaan wi nga xam ne moom la sumboo nag ñun su ko defee ñu wax leen délégation yi nga xam ne ñoom lañu àndal ci bis bi te ñu teew su ko defee daaray jigéen yi nga xam ne ñoo yor cours dimanche yi ñoo toog nii su ko defee di jaajëfalit parrain bi docteur Abdourahmane Thiaw defe naa ne mooy borom pharmacie Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam teew na ci bis bi moom la ñu tuddee parrain bi ren su ko defee maanaam oustaz daam teew na fi moom it bokk na ci délégation bi kër sëriñ Touba gi nga xam ne moo ne ci yëmbal te jëwriñ ji nekk imam Habib maanaam ñi nga xam ne teewal na ñu fi mooy mbooloo mi nga xam ne nekk na ci ginnaaw ñu mën cee lim maanaam Baye Adama Thioub baay Assane Diop su ko defee ak jëwriñ maanaam góor a Niang su ko defee Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne euh, oustaz mbokkum sëñ Abdou mu sëñ Cheikh Khady moo toog nii suñu ginnaaw su ko defee délégation bi nga xam ne mooy délégation bi nga xam ne sëñ Cheikh Khady yebal na leen fii te suñu sëriñ sëñ Khadim Mbacke jiite ko ñoo ngi nii toog ci tribune bi am nañ fi keneen koo xam ne suñu mbokkum jullit la suñu mbokkum taalibe la muy monsieur Soare ma nga nële su ko defee délégation yooyu moo fi teew su ko defee rek maanaam pour mën a gàttal dañu jëlaat kàddu gi jox oustaz daam balaa oustaz Alioune Sall jëlaat eggale waxtaan wi ñoo ngi nuyuwaat ñëpp di leen jaarit ñëpp di jaajëfal nag ñi nga xam ne ànd nañoo ñoom ci bis bi su ko defee en commençant par le sous-préfet muy sëñ Khadim Gueye di jullit di taalibe wax dëgg yàlla bi ñu demee di waxtaan ak moom daf nañu kër gi seen kër la ma sàmba lépp lu ngeen fi bëgg maanaam ubbil nañ leen bunti noonu lay jël jëfale maanaam le proviseur Gueye mi nga xam ne maanaam lycée bi daanaka ubbil nañ ko moom it wax dëgg yàlla yaatalal ñu du ñu bàyyi aussi le commissaire Fall mi nga xam ne defe naa ne mbokk la ci oustaz Alioune Sall wala mbokk la ci Baye Fall yi ak Yaay Fall yi Alioune Sall yi su ko defee noonu la ñu jaafalee monsieur le maire Babacar Ndaw xaj na indisponibilité moo leen jàpp ndax léegi la ma préfet woo wax ne ma président moo leen woowoon fii léegi ne leen maanaam dañ nañ ko fekk Colobane waane amoon na yéene ñëw fii ma ne ko lépp man na kon maanaam bàyyi Fall yi ak Yaay Fall yi Oustaz Alioune ak délégation yi nga xam ne ñoo bokk bés bi ñooñ ñooy ñi nga xam ne teew nañ fi wala ñoo ñooy ñi nga xam ne amoon nañu teew fi te teewuñ fi kon ñoo ngi nuyu waat di leen jaar ñëpp waane duñu bàyyi xel wala duñu fàttee maanaam suñu imam bi nga xam ne imam Alioune Souaré du ko jóg di tudd yal na yàlla guddal fan yi yal na yàlla wéral yi kon su ko defee loolu lañ doon ekkati su ko defee di jégalu kàddu yi waane ñu jël kàddu gi rek jox Oustaz Dame Ndiaye mi nga xam ne kóllëreeg waa daara ji la kóllëreeg Oustaz Alioune Sall la waane kóllëreeg yaay faal yi ak baay faal yi la kon Oustaz Dame asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah aleykum salaam wa rahmatullahi <clears throat> mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di jaareel nuyoo boobu ci loxo suñu xarit suñu soppee suñu rakk oustaz Alioune Sall di leen ndokkeel ci bis di ndokkeel surtout Baye Fall yi ak Yaay Fall yi di leen encouragé di wax ne loolu na fii fii la li yonte yàlla Ibrahima waxoon soxna yonte yàlla Ismaïl ba ne ko foofu la dëgër na dëgër fii la la dëgër diine ji ñu bokk kenn ku ne mën ngi ci dara dafa am njuumte bu yàgg lool te njuumte bi dañ ko fa war a jëlee ndax coono bu ñu am rek njuumte boobu moo ñu ko teg mooy xaaj société bi am ñu war a liggéey lislaam am ñuy seetaan loolu wér li wér mooy kenn ku ne la nga li nga am lislaam soxla na ko kenn ku ne ni nga mel manal na lislaam bi dara moo tax même conflit de génération amul ci lislaam conflit de génération mooy ñaar ñu bokk bokkul ay at te war a def lenn li ci lislaam loolu amul li lislaam am mooy at boo toll rek am na loo gën a man def ko âge boo am ba ba ngay gën ba bañ lay suul âge boo am ba bañ lay suul rek mën ngaa liggéey lislaam retraite amul ci lislaam mooy as boo toll rek defal la nga gën a man waaye nag âge bi tudd ndaw fi ngeen toll nii ci ci étape yi ëpp solo ci diini ji la bokk mooy étape bu ndaw moo tax bu yowmal xeyaamee juróom yi ñu lay laaj noo ci def dañ caa boole bi nga bi nga nekkee ndaw loo doon def heureusement yéen bi ngeen nekkee ndaw bu ngeen demee dana neexal lay lool ñun ay ndaw lañ woon yu tuddee suñu bopp bàyyi faalu ustaal insaan lu tax parce que dañ koo gisoon muy liggéey ci diine ji ñu jàppale ko ndax am na lu man am na luñ man te liñ man mënu ko lim man mënuñu ko ñu mottalante loolu mooy seen lay bu ngeen ko layee da ngeen jàll incha allah gannaaw bu jàllee moom ba pare nag salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. oustaz jërëjëf ci kàddu yu rafet yi. su ko defee balaa oustaz jël rek ñu jël soñ sëriñ suñu soppee muy sëñ xaadi mbàkke bi nga xam ne moo fi teew teew sëñ abdu mu sëñ cheikh xaddi mu am cerno birahim su ko defee Mbàkke Balla waaw sëñ xaadim daf may wax ne ma maanaam cër bi jëlaat na ko jox ko oustaz suñ Mbàkke Sylla bi nga xam ne ku nekk xam na ne moom ak oustaz Alioune Souaré altine la ak talaata bis xaju ci oustaz Alioune Sall waaw man de bàyyi xam nga ne maanaam waaye nag bàyyi maa ngi lay xamal ne ku am ay fans nga fii kan mën nga dàq sant soirée waaw ah soirée nga ne <laughs> kon kon oustaz oustaz Mbacke sëñ Xaadim nee na kàddu gi maanaam yow ne la nga def nga nga nga ma ngi eggale yéeneem bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi al anbiyaai wa imaami al mursalin sayidina wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu yëkkati kàddu rek kon kàddu yu ndigal di kàddu sëriñ abdu Abdou moom Baye Seex Xadi mi nga xam ne Baye Faal yi ak Yaay Faal yi moom lañ def muy seen parrain d'honneur at mu yàlla dogal mu bokk ci ñi nga xam ne dañ koy dara jaale jotaay bi naga si daaw teewoon na fi teew fii ci jotaay bi ànd ak délégation. ren yàlla dogal nekku fi mu nekk bitim réew waaye mu yabal la yable délégation boo xam ne ay mbokki boppam la yebal ak ay xaritam ak njabootam sëriñ xaadim mbàkke mi toog ci catu mbooloo mi dend ak docteur abdourahman moo ko jiite ànd ak ki nga xam ne mooy sëriñ xaadim mbàkke meneen sëriñ xaadim mbàkke imaam ak sëriñ babacar Touré xam naa ni protocole bi tëdde la waaye kon bi imam ahmad daam di wax mënoon naa waxaale kàddug sëñ abdu ndax diggante imaam daam ak suñ abdu itam benn benn rek la kenn nit lañ diggante Oustaz Alioune Sall ak sëñ Abdou kenn nit lañ li tax sëñ xaadim jox ma kàddu gi itam gannaaw bu dul woon fii tey bu sëñ abdu di yónni man ak ñoom lay boole yónni looloo tax mu bëgg a dëggal loolu tax mu ne ma nga yëkkati kàddu ci turu sëñ Abdou sëñ Abdou di xaritu Oustaz Alioune sàll boo xamante ne bu yàgg yàgg yàlla ci conférence yi nga xam ne moom la sëñ Abdou di amal daarul moxti ci bisu màggal gi Euh, ci conférence boobu bis bu yàlla sàkk bu koy amal oustaz Alioune Sall mii daa bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy taxawee bi yàlla dogalee oustaz di fa ñëw di ànd ak Baye Fall alaaji ñang euh, alaaji jàppe sëñ Abdou ni mu jàppee oustaz fonke ko noonu yëge ko noonu di ko jokk yemuñu ci loolu waaye bu conférence boobu jubsee sëñ Abdou nee na Baye Fall yi dañuy def délégation bu mag ñëw yor liggéey bi nga xam ne danañ fa ñëw lu jiitu conférence bi nekk fa bisu conférence bi bu màggal gi jàllee ñu nekkaat fa ba mu yeewi leen loolu nag du jëf ju tuuti te xam na ne buñ ko defee fonk guñ fonk Oustaz Alioune Sall ak xam guñ xam digganteem ak sëñ Abdou moo tax ñu di ko def sañ Abdou nee na lool mu ngi leen ciy sant bu baax mi ngi leen ciy gërëm mi ngi leen di jaajëfal dafa nekk bitim réew ci tukki tukki bu yàgg looloo tax teewul ci jotaay bi waaye yabal na nag euh, ñi nga xamante ne ni ñoo koy teewal fépp fuñ ko soxlaa ci dëkk bi ci bis yi mu fonk ñu bàyyi seen i te tegoo coono yu bari ndax man ak ñoom ñoo départandoo woon waaye dañoo réer eh, ñuy wër ko wootante ba yàlla dogal ñu egsi loolu lu rëy rëy la bàyyi Fall yi Sëñ Abdou ne mi ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal thème bi oustaz di waxtaane nga xam ne eh, thème mu formation la ci képp ku fi nekk ndax liggéeykatu diine ak ñi nga xamante ne ñooy xeeñcu diine faawu nit ki ñu wutal ko modèle àdduna ku bëgg a dem ci kanam faawu nga ne damaa bëgg a mel ne diw faawu it ki nga teg sa ngay jéem a dox di jéem a nuroog moom xalaat ne la ko daloon dana la dal képp kuy ndaw tey boo toogee ñuy waxtaane mushab li nga ciy jànge mooy ndaw a ngi nii loo xam ne lu am jom la waaye li nga ciy dégge mooy lislaam it yàgg naa responsabilité ay ndaw ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu xatal ko màkka coono yam fa daj mu daj ko fa ba buntu ubbeeku feeñ ma diina mu bàyyi fa paaya yebal xale day tegtale ne moom bokkut ci ñi naan xale la xale la xale la wala xale laa réew mi fii ñiñ fii tudd ñëpp liñ taxawal biñ koy taxawal kenn amu ci ñeent fukki Latjoor sax bi muy yilif Kajoor fukki at ak juróom-ñaar la am nga xam ne dañ koo jëlee ca daara ja yóbbu ko def ko la ñuy defal góor ñëw fal ko mu jiite Kajoor euh, mag ñëpp yonent yàlla Muhammad alayhi salaam moo jot moo jot risaala gi ci ñeen fukki at waaye teewul lépp luy responsabilité teg na ko ci loxol ndaw ndaw ñooñu doxal ko ba mu àgg fa mu jëm moo tax am réew it bu bëggee jëm kanam xar kanamam soppeeku faaw réew ma ñu boole ca loxol ndaw yi ca la koy defar bu mag ñi di wax ak a joxoñ ndaw ñi ndaw ñi doxal la ñuy doxal loolu daa bokk ci li nga xam ne mooy njàngaleem lislaam sëñ Abdou mi may wax ci kàddoom loolu mooy aw doxaliinam loolu mooy yëngutoom loolu mooy dalam lépp lu muy def wala mu koy santaane du ci xool ati nit waaye kum jàpp ne man nga ko rek mu sant la ko moo tax xàmmewut ndaw xàmmewut mag xàmmewut euh, ab tariixa xàmmewut ku dul ab tariixa moo tax sëñ kër Touré bi may lim délégation bi di moom itam euh, bu pir bokk ci ñi nga xam ne ñoo fi teewal sëñ Abdou ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax kàddu yi sëñ Abdou ci mbooloo mënoon naa ndax bu Oustaz Alioune Sall di wax bu ne maa fi teewal suñu Abdou mu doy sëkk waaye buñ ñu joxee kàddu gi bëgg a rafetal ak bëgg a wone ne ñoom teew nañ fi moo tax ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Oustaz sëñ Abdou nee mi ngi lay ndokkeel bu baax di lu taxawaay yi lam la waxoon ba bàyyi Cheikh Khady nelawee ne la ñoo bokk way jur ñoo bokk ku ñàkk loolu mooy lim gëm te loolu ci loolu la nekk bis bi ñor na ko lool ndax li nga ko fonk bis bu yàlla sàkk rek euh, mën naa ne ci weer wi amut bu ñuy xëy ba ngoon jot suñu ab laajuma conférence ba kañ la fan la toll noo yaakaar ne noonu la ñu war a def kan nga yaakaar ne moo fa war a teew loolu fonk gu mu ko fonk moo tax ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax di ndokkeel suñu xarit docteur Abdourahmane mi ñu ko dara jaale loolu itam delloo njukkal nit la ndax kenn la ci njabootu Oustaz Alioune Sall buñ ko dara jaale wu doon conférence bi nii la fiy teewee kon buñ ko ko dara jaale waatee dañ koo soññiwaat ci liggéey bi soññi suñ bopp ñu ngi lay ñu ngi koy bokk ak yow te di la ñaanal borom bi subhanahu wa taala defal ko tawféex defal ko docteur Alioune Gadia ak kilifa yi fi nekk yépp maa ngi jégalu ci kàddu yi ni mu jaxasoo ndax waajaluñ ko te dañoo bett waaye nag bu fi sëñ Abdou nekkoon man lay wax loo ñi mu yebal bu ñu ma wax loo faaw ma wax ci turam yal na yàlla def ñu yàgg koo teewe yàlla kàttanal Baye faal yi ba philosophie bi ne ci Baye Fall nekk ci yéen ak Baye faal du takk photob Cheikh Ibra rek wala yor ay rasta rek wala yorum njël wala yor kuur Baye Fall philosophie la mooy ku nangu nit ku nangu ñu yilif ko nit ku nangoo sonn ndax kilifaam nit ku nangu ñu yilif ko nit ku nangoo sonn ndax kilifaam loolu nag ba mu amee ba nëgë ni fu nit defee rek Baye Fall lay doon léeg sax nit toog nit ne baal ma mayee raxasu mi tudde boppam Baay Faal léeg nit ne baal ma garde dàll yi tudde boppam Baay Faal léeg-léeg nit gën a nangu tudde boppam Baay Faal te yonent bi moo ne ki gën ci nit ñi mooy ki nangoo liggéeyal nit ñi Cheikh Ibra bi mu ñëw kër Sëñ Tuubaa fekk na fa fanweeri ak juróom-ñeent mu ñëw ñeent fukkeel ko ba noppi tudd baabul muridina la ko may nangoo tax kon nag olofay wax ne nangu jël na ci rub bañ te nag ku taxut kenn nangu doo tax kenn nangul la kon ku yebu nangul ku yàlla nangul rek te nag ki ne ci mission di ko liggéey mission bi di jur di ami njariñ jéem a taq ca tiir ga moo gën taxaw di seetaan te nag niñ ci mën a taq yaatu na lool mission bi yàlla dénk Oustaz Alioune Sall muy wax nit ñi di ci wuy si ni a bari na lool soxna yi ñëw di jàng si fonk la bañ tudde leen bis bi soxna Faat Jàllo mi taxaw la Ali Imran TV ak ñi ciy liggéey euh, Baay Faal yi laxasaayu ñëw ne nii laay jàppe ci liggéey bi yaay Faal yi taxaw ni ni laay jàppe ci liggéey bi yaay daara yi ni li laay jàppe ci liggéey bi loolu mooy mission wu l'islam yonent bi ba tàmbulee dafa ami sahaaba lu mu réussir ci àdduna saxaaba yee tax mu réussir ko eh, yonent yàlla isa sax ba mu tàmbalee mission ba dafa wax ne man ansaari ilallah alxawaari yoona ne ko naxnu ansaarullah sëriñ si bañ tàmbalee bu ñu amul woon i taalibe seen mission day échec du ñu dem kenn nit mënta def dara benn lam du yëngutu waaye kenn ku ne na nga toll nag ña ànd ak yow ñoo lay tollale noonu kon nag gën a góorgóorlu ci loolu gën a jaaju loolu mooy li nga xam ne moo ñu war maa ngi ciy ñëpp di ci jiital sama bopp di baalu àq ci kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. barakaatu eh, ñun de daane Mbacke waxaale lu ñu rek Mbacke moom daanaka bi mu waxaleeg sëñ bi moom jottali waale aussi suñu suñuy kàddu donc cant rek lay nekk di sant suñu borom subhanahu wa taala di julli si yonente bi sallallahu alayhi wa di ñaanal oustaz Alioune Sall eh, yàlla bàyyi ko fi lu yàgg defal ko tawféex di la renouveler suñu soppe ak suñu bëggeel ci yow. oustaz ku la bëgg lañ ñun dañoo bokk Ali Imran ak ñi ma àndal ñi ñëpp muy ce soir Ibrahim Band ak euh, docteur Gadiaga te dañ la sopp wallaay ku la sopp lañ su ma amee kàddu yu may jottali loolu rek lay nekk di di rafet lu baax baay Fall yi ak Yaay Fall yi seen liggéey di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex am na sama benn xarit mu ngi fii moom ak way waajuram bu jigéen bi mu ñëwee dama ne moom mënta ñëw fii parce que daf la sopp ba nga xam ne toog fële jàkkaarloog yow moom moo koy gënal mu toog fii si gën a aw donc muy en faali Diop ñu ngi koy jaajëfal ci ci teewaay bi di di en tout cas rafetlu jataay bi salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñoo ngi toll ci kon kàddu yi jeexal jataay bi. di ñaan yàlla yàlla nañu fekkee déwén. ñi ko fekk ñépp ba diwee yàlla nañ ko fekke Baay Faal yi ak Yaay Faal yi seen conférence bi validé nañ ko alaa daw na ñi ngeen tànn sargale leen ko yeyoon nañ ko tàmbale ci maire yi nga xam ne dimanche bu ne maak ñoom la tey ñibbiwuñ ñoo jàng ba noppi rek lal ba sam tëdd ne bu ustaas di dem ñu ànd ñibbi wuñ tey xam naa ko ci nekk sax ko dem na ngaa yor sab saak def ci li nga sol ndax ba ñuy jàng soluñu woon lii <laughs> waaw moom kay koo sopp sopp na la koo sopp sopp na la docteur Gadiaga mii bu ma jaaree sàngal kaam te fekkuma ko fa damay klaxonné pour yëg ne jaar naa fi léeg-léeg sax ma teggi ko ndax ni muy def ak man foo ko mutal ma doom yooyu di fóor nu mu tudd. CA 5000 mu ngoog le fokk mutal ma ko ndax man loolu doo sama garab ñi moo pikiru duma naan garab gu weex <laughs> yàlla na ma yàlla yërëm sëriñ bi ñu ngi lay jox cër bu baax a baax nuyul ñu sunu sunu sunu mag sunu sëriñ sëñ Ceex sëñ sëñ Abdou nuyul ñu ko bu baax a baax a baax noo comment yow xam nga nun xam nañu noo bokk bàyyi toog nañ ca kanam sëriñ ba sëñ Ceex Xaddi mu boole su ñaar loxo maak moom kere bi góor gi wàcc liggéey bañ denc ko nele ñu ñëw taxaw ci bunt bi def na ma gis nga fee mu tëdd ak néegam bi ñoo bokk yam benn jëru cee tëj ndax lu ñu sàcc ne ko fi yàlla na yàlla taas ci barkeem euh, sunu doom jii di DG Fat jàlloo nga xam ne dafa bokk ci ñu tuddee bis bi noonu la ci sargal bu baax a baax di la ci ndokkeel ndax yàgg yaay faal yi yàgg baay faal yi la euh, sa jumtukaay bi ngay liggéeyee te di ci liggéeyal ñëpp yàlla na ci ñëpp gis seen bopp wax naa ci sama émission démb bi aatu euh, ginnaaw moom daal laxasaayu fas ko yéenee def fi na lu ñu def technicien yaa ngi nii toog caméraman yaa ngi nii bu subaa adduna si yépp seetaan ko kon nag euh, jàpp leen ci dugg leen ci seen loxo waxoon naa yaay faal yi ñu ngi may dégg jar na léeg-léeg nga ne ko alu téléphone ne ko DG loo bëgg ma defal la ko tey mu ne demal baleel ma studio ya loo bëgg ma defal la ko tey mu ne kaay ma carte fidélité noonu lañ ko tuddee de carte fidélité waaw léeg-léeg mu yëkkati dara dëgg yàlla jékki-jékki ne dañoo bëgg ab oto dañoo bëgg du dañoo bëgg nangam man de sama sañoon képp ku ma xam te xam ne mi ngi moom. su ko wootee nga ci sa loxo am déet xëy na fi benn bis dem ca oto yenn daal oto bii laa bëggal sama papa jaroon na kay wax dëgg yàlla mu ko ci nekk yëkkati sa cent mille sa deux cent mille jox ko kon oto bi mat na bu yàgg dégg naa matagut waaw <laughs> donc déjà ñu ngi la ci jaajëfal ci ci ci liñ la ko tuddee soxna ami gisuma ko fii soxna njéemee seen naa ko moom ma nga nee toog Euh, soxna Aminta Diop gisuma ko fi dégg naa sax soose naan Aminta juuf mais aminte Diop la du dëgg euh, aatuma réeroon nag moo feeñ aatuma réeroon moo feeñ aatu feeñ na moo toog nii <laughs> aatu feeñ na donc ñi ñu tudde bis bi ñëpp gis naa ne ñépp teew nañ fi sargal nag la woon ak yooyu def ngeen fi nag lu ma neex lool sama turundoowu jigéen wii ngeen xottil fii yére vraiment neex na ma waaw xaw ma ñëpp am nañ turundoowu jigéenam déet nag bariwul de waaw mu nga bariwul moo tax ma ne sogg ah cofeel danga ko lal yàlla na ko yàlla fay ci ab lañ doon wax Mbàkke muy genn gone gu jàngal aw mag ba dugal ci lislaam juróom-ñaar fukki nit ak lu topp te yonent mu ne ku defar kenn yàlla defar say affaire kenn moom soixante-dix de plus la defar nekk na Madina ba niñ ko rob kero Uhud kenn mësu ko àtte keneen baa muy xuloo wala mu ñëw ci kër tànn la fa gën wala mu sant ni lu mënut Musab ibnu la yaram bi tax waa Madina bëgg a gis ki ko yar ba bañ ko gisee keroog la gàddaay gi tàmbalee ndox mbokk yi yàlla nañ fekki déwante weesu ko suñu mbokk Ibou Ngoné mooy ak si noonu ak Alioune Fall suñu auditeur bi nga xam ne mooy woote ci rajo Sud FM ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko ci jox cër ko ñaanal barke ak tawfiix kon na góorgóorlu kàddu yu Oustaz yëkkati léegi soo ko boolee kàddu yu euh, sëñ Mbàkke si la yëkkati mooy kàddu ku ne fi mu toll na fa jàpp ku ne fi mu toll na fa jàpp li taxoon liggéey bi jóg mooy Alioune Sall tàmbali woon ba muy nekk ca rajo Dunia ba mu fa toxoon nemp rajo Sud FM la commencé nit ñi bëgg a ñëw jàpp ci li muy liggéey kii jàpp fee kii jàpp fee góor jàpp ci góor ñu jàppante ba ñu àgg fa ñu kon nag Baye Fall noo ngi lay nuyu di fab nuyoo bi teg ci sa loxo joxal ñu ko Baye Fall yépp ak Yaay Fall yi ñu ne ci seen biir te di baay faal te amaguñ jabar yàlla nañ am fit wuñ takke ñu fi nekk di ay yaay faal te amaguñ jëkkër yàlla nañ am jëkkër balaa diwén te bàyyi dàq bi bàyyi dàq bi xam naa xaw ma waa laayoon ñibbi nañu de yéen laa bëgg a toppandoo seen seen docteur yéen laa bëgg a toppandoo jékki-jékki woo yaay faale ak baay faale takk sëy yi man 80 laa bëgg a takk ñoom 70 lañ takk daaw man 80 laa bëgg a takk ku yebu defaru nag ah en tout cas ku yebu defaru waaw yaa jënd gura Salif nee na moo res gura gi mbokk yi kon dafa mel ni benn question ñëwu fi Mor Seck am nga ñaari question kon indi ko waa kay njaay <laughs> ñëw nga délégation DG <laughs> ah ndeysaan Mor acca kon ñëwal ci question yi bu déwénee bu ñëw yàlla ñëpp ñëw di yàlla nañu gis suñu bopp ci liggéey bi waxuli amalu fas yaralaahu war a rasuluhu lu si ni jaahadoo fii naa lu ci waaye man na ko ca def lu mënut na ko jéem waa sililu wala boog zone euh, nootu guy jama gaañaa ngi ni toog macha allah keroog dama faa jaar di seet moor rek sama oto bi duy ko ba mu di fees ak yëf <laughs> yal na yàlla sàmm leen moor moom léegi kenn mënut koo gis kon xam naa ñu wax sëriñ bi mu def ñaan ah dafa am bala ñu def ñaan dafa am maanaam délégation boo xam ne moo ñu fi gane si léegi su ko defee ñu jiite ci suñu sànq bu tedd bi suñu Cheikh Gallo Laye mu suñu Abdoulaye Thiaw laay cheikh bi ñoo ngi ñaan suñu borom guddal sa fan ñu amaat fi benn délégation boo xam ne le maire de la commune de Yeumbeul Nord Babacar Ndaw moo fi yabal benn délégation bi ci njiitul Yoro Sène bi nga xam ne mooy CCR ak euh, monsieur la maire maanaam euh, Moussa Ndiaye ñooñ ñooñ ñi nga xam ne ñoo fi gan si léegi su ko defee ñoo ngi leen di jox seen wàccuwaay di wax ne délégation bi monsieur le maire yabal da ngeen jàpp mbir mi seen mbir la su ko defee moom it amoon na yéene waaye bu kenn ñëwoon rek ci maire bi daanaka maanaam yëmbal noor yëpp ñëw nañu kon ñoo ngi leen di dalal jàmm cheikh bi ñoo ngi lay ñaanal suñu borom guddal fan yi wéeral cër yi bu baax a baax baax baax baax waane maanaam dafa amaat leneen loo xam ne moo fi feeñaat muy yéene su ko defee maanaam baay faal yi ak yaay faal yi nga xam ne ñoo ànd ak Alioune Sall mi oustaz lii di seen sixième édition ñoo am koo xam ne ku am cofeel la ci moom muy jëmm joo xam ne ku disponible la koo am engagement la ñu koy wax Alioune Badara Socé di technicien ci rajo Sud FM Baay Faal yi ak Yaay Faal yi dañuy wax ne depuis bi nga xam ne maanaam mbir mii ñoo ngi koy taxawal wala lu jiitu lool sax amul benn yoon boo xam ne bu ñu gestoo duñu ko gis seen ginnaaw muy ànd ak yow ci jëf daanaka maanaam publicité yi nga xam ne mooy jàll ci rajo bi ak avant première yëpp ginnaaw yàlla moo ci taxaw ba kenn fay dara kon Baay Faal yi nga xam ne ak Yaay Faal yi nga xam ne ñoo waral jataay bi ñoo am mbégte boo xam ne am na fu mu tàmbale waa ne am na fu yam ci jëmm jooju nga xam ne mooy le grand technicien bi ñaan suñu borom guddal fanam muy Alioune Badara Socé su ko defee ñu koy jox décoration bi nga xam ne xam naa dañ koy jox sëñ xaadim sëñ xaadim taxawal ko mi nga xam ne tey moo fi taxaw taxaw maanaam sëñ Abdou mu sëñ Cheikh Khady mu maam Thierno Birahim moom la ñu koy jox mu jox décoration bi Oustaz Alioune Sall xam naa bu ñu ko joxee Oustaz wala Cheikh Mbacke waa sëñ Mbacke Cheikh mi nga xam ne maanaam moom la ñëpp xam ak Oustaz su ko defee moom la sëñ xaadim di jox décoration bi nga xam ne Alioune Badara Socé technicien moom la ko Baye Fall yi ak Yaay Fall yi décoré ci pas-pasam ak ci taxawaay am ci disponibilité loolu mooy kàddu yi nga xam ne mbooloo mi moom la doon da jottali di ñaan képp ko xam ne teew na fi yàlla na ngi fi teew déwén nu ko ustaas waxee léegi rek ndexit suñu borom boo ko ñaanee mu may la nga sant ko mu dolli la comme que daaw dañ koo ñaanoon fekkee ren du ñu def lu dul ñaanaat ko ndax moom am li nga xam ne pour jaam aadama doomu adama yi rek moo tax rawatina ki ñi nga xam ne ñoo ngi wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah di jaajëfal ñëpp kon ñu jox sëñ Mbàkke aca bismillah waaw jërëjëf jërëjëf euh, maître de cérémonie jërëjëf damaa bëggoon a làkk tubaab di fàtte nu ñu koy waxee moo tax ma naan Salif nu ñu koy waxee ti maître de cérémonie ah maître de cérémonie jërëjëf waaw kay jërëjëf jërëjëf kon ñu ñëw rek ci jeexitalu jotaay bi eh, jaajëfalaat Oustaz Alioune Sall bu baax léegi bi muy misaal dama ne ñun dañoo amul culture u tàccu waaye kon xam naa ni dañ ko tàccu moom tàccu yu foor a foor a foor parce que voilà loolu daf may jaaxal daal parce tàccu nañ koo xam ne moo ko gën a jàmbaare tàccu leen bu baax kon ndax euh, léeg-léeg ab jàngalekat buy misaal di misaal di misaal di misaal parce que misaal li koy indi mooy jege si nit ki li nga doon wax nga koy puus mu koy jege di ko puus mu ko jege bu la laalee nag da war a vivre pour mu yëg ne laal na la moo tax moo tax moo tax misaal yi mu doon misaal léegi daf ñu ko doon puus rek di ñu puus yëf yi euh, ba mu jaral ko mu ne ma am ab tablo defe naa bi mu daanelee ñun ñëpp laaj bi moor doon laaj leer na nañ ñu xam ne ab sëriñ ak yonent bi dañoo nekkut ay nawle dañoo bokkut waaye yonent bee xel li sëriñ bi nga jàpp ne daa yor baraada bi nga ñëw ci moom ne ko xellil ma léegi nag jokkale googu mu ñu jokkaleeg moom bu ko suñ Moustapha waxoon ca ca kursu ba danañ ko tàccoo tàccoo tàccu ba noppi danañ ko bind waxtaane waat ko ay yooni yooni yoon ndax wax ji importance bi ñu xam ne dañu xam ne am na ko waaye nag eh, alhamdulilah jàpp naa ne ni ma ni ma comprendre li mu doon wax ñi doon déglu itam comprendre nañ ko noonu te nag eh, oustaz moom comprendre ko jafewut Eh, ndax li muy misaal leer na lool eh, sëriñ bi sëñ galo Baye Fall ak Yaay Fall yi ne ñu ngi lay sant bu baax moom la ma alaaji doon déy léegi ndax itam bi ñu misaal ci ab sëriñ doomi kilifa ñëw eh, day dëggal liñ doon wax rek tey it ñàkk xeeb jotaay bi moo tax nga ñëw ñàkk leen a xeeb it moo tax nga ñëw ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw amul benn tardement amul benn tardement incha allah ñoo ngi lay ciy jaajëfal bu baax a baax ci turu organisateur yi alaaji ña ngi mu àndal liggéey bi ñëpp ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yokku laa dëgëral yokku laa yokku laa kattanal yow ak yéen ñi nga xam ne yéen a ŋànk diine ji yëpp eh, ak suñu kilifa gi nga xam ne mooy Oustaz Alioune Sall mi doon amal waxtaan wi kon ñu santaat ñëpp gërëm ñëpp rek jaajëfal leen bu baax a baax eh, diplôme bi ngeen jox aline Badara Socé eh, nga xamante ne mooy responsable technique bu Sud FM seen rajo di njabootu Oustaz Alioune Sall Alioune Badara nit la koo xamante ni ni ngeen doone bàyyi faalu Oustaz alin Sall noonu la doone bàyyi faalu Oustaz Alioune Sall tàmbulee wu ko ci noonu waaye ca Iran daw la ko tàmbulee ca ba muy nekk Sud FM Thiès nekkandoo fa ak moom ab taawam Iran la ko tudde bi mu ñëwee Dakar xamanteek Oustaz alin Sall it xanaa lu Oustaz bëggut ci moom waaye lu mu soxla ci moom rek mu def ko moo tax publicité yi ngeen di dégg yëpp lu ci sama voix defut moom moo ko def ndax moom moo jàng te itam mën na ko lool ngir ñu xamut kuy kooku mooy kiy def publicité yi ngeen di dégg ci rajo bi waaye mooy suñu responsable technique fële ca kër ga di kilifa itam Baye Fall jërë ngeen jëf ci xalaat bu rafet boobu ngeen def defal ko Oustaz Alioune Sall defal ko itam mboolem ñi nga xam ne ñooy personnel lu Sud FM seen rajo yal na yàlla fay leen ci loolu kon ñu delloo kàddu gi Oustaz bu ko defee ñu ñaan euh, daal di yëkkati jotaay bi incha allah bismillah alhamdulilah sëriñ si ci kaw ñëpp ñoo ànd ne ngeen jàng alfatiha sëriñ si nee nañ ngeen jàng lii fi xore si ñetti yoon sëriñ si nee nañ ngeen jàng ixlaas jàng naar si sëriñ si nee nañ naa tëj ñaan gi allahumma shfi mardaana waqdi xawaajana warham mawtaana allahumma shfi mardaana waqdi xawaajana warham mawtaana allahumma in kaanu musinina fazid isaanihim wa in kaanu musiina fajal an sayaatihim allahumma akrim nusulahum wasi madaxalahum askin wasratal junaani jaal seydna muhammad alayhi salaatu wasalaam subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin nu jàngaat alfaatiha ñaanal waajuru alaaji ñang màggat ak tëlee ko te ñëw toog fii ci jataay bi ndax fii la daan toog ak noonu bu noppee mu ànd ak ñu dem ci kër ga yal na ko yàlla saafara ñu jàngal ko faatiha ak ixlaas ak falax ak naas xayri maxdubi allahumma anta saafi si fa laa yuxaadiru saxma yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara amin الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي Thank you.